société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse dali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall élection présidentielle 2024 xam ne moom la ñu dëgmal Macky du ci bokk démb la ko xamle ci discours à la nation bi nga xam ne doon na ko amal alhamdulilah yéenekaay gi ne na moom Macky Sall daan wax ne dogal bi nga a baax xalaat na ci lu yàgg-yàgg doo ko jël ne du nekk candidat dëgmal moom Macky Sall nee na Sénégal weesu na ko le Sénégal dépasse ma personne loolee kàddu yu Macky Sall la ndax nee na ci Sénégal am na fi ay leader ay kàngam yoo xam ne mën nañoo émerger le Sénégal maanaam mën nañoo dugal seen loxo ci Sénégal ba Sénégal dox bu baax a baax nee na élection présidentielle 2019 waxoon na ne bu ñu ko falee mooy nekk second ak dernier mandat nee na loolee la jëfee journal bi di Rewmi Quotidien nee na en tout cas li am ba de na pression boo xam ne gàll woon na ci nga xam ne ñoo ko wër doon la ngir mu samp ndëndam waaye nag Macky Sall nee na du bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy du ñu xibaar naan ñu Macky Sall yeewi na askanu Sénégal yéenekaay gi di Direct News xëy fësal ci xëte mu njëkk na Macky Sall toujours constant Macky Sall jamono ji jeexal na coow ci wàllum ñetteelu mandat ndax nañu fee coow mbirum ñetteelu mandat léegi mbir mi leer na mbir mi jeex na bëri na ay de d'état yoo xam ne félicité nañ Macky Sall ci dogal bi nga xam ne jël na ko yéenekaay gi di Rewmi Quotidien daat nay wax ne manifestation yi nga xam ne moo fi xewoon weeru ak li nga xam ne moo fa jot xew loolu lépp maanaam danañu ko lijjanti ci wàllum yoon duñu ko bàyyi mu sedd journal bi de Le Quotidien yor yora ñu fekk fa Bougane Gueye Dany na maa ngi jaajëfal Macky Sall ci dogal bi nga xam ne jël na ko waaye nag bu ñu wàcce suñu loxo maanaam xeex bi na continuer ndax Macky Sall lépp loo xam ne def na ko am na loo xam ne dafa làqu ca ginnaaw bay boo nag ñu waajal bu baax a baax ndax du ñu nango benn yoona lu jëm ci wàllum répression maanaam di dal ci kaw askan wi Macky Sall tamit du ñu ko nangol benn yoona muy jéem a éliminer ay candidat rawatina ne Ousmane Sonko loole munuñu ko nangu tey munuñu ko nangu ëllëg yéen kaay gi di l'info xëy fësal ci xëte mu njëkk ne Macky Sall sort par la grande gi di le peuple quotidien nee na Macky entre dans l'histoire yéen kaay gi di Rewmi bu tekki daat nay wax ne jamono ji bu dee am na ñenn ñoo xam ne ñoom la ñu war a jaaj jaajëfal ñoom la ñu war a tàcc mooy askanu Sénégal gi nga xam ne ñoom ñoo taxaw daal di xeex ngir Macky Sall respecté li nga xam ne mooy constitution bi Cheikh Tidiane Dieye ne na Macky Sall dogal bi nga xam ne jël na ko maanaam jëlu ko ngir nag lu jëm ci wàllum honneur ma déedéet Macky Sall dañu ko forcé maanaam du caagi ne wàllum ngoram ak wàllum yu mel noonu ne moo tax Macky Sall ne bokkuma ci élection yi déedéet demeewul noonu Cheikh Tidiane Dieye nee na taxawaay bi nga xam ne moom la peuple sénégalais amee maanaam askanu Sénégal détermination bi nga xam ne moom la ñu amee loolee ci boppam moo tax Macky Sall deltu ginnaaw ak pression internationale bi nga xam ne gàll woon na ci ndoddam yéen kay gi de la quotidien yor yor na tàggatoo boo xam ne bu doy war a triste tàggatoo noonu la ko journal bi de la quotidien yor yor xëy fësale nee na nag jamono ji ñoo ngi jëm ci APR boo xam ne maanaam ci implosion APR boo xam ne ci tas tasar la jëm soo muy tuule yéen kay gi di bés bi nee na jamono jii na kan mooy wuutu Macky Sall xeex ba commencé na maanaam ci diggante Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye ak Abdoulaye Daouda Diallo yéen kay gi ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias nee na dogal bi nga xam ne Macky Sall jël na ko kilifa diina yi nekk ci réew mi am nañu si taxawaay bu am solo Aminata Touré nee na du félicité Macky Sall du ko jaajëfal ndax nag Macky Sall defu fi lenn loo xam ne jar nañ ñu koy tàccoo Macky Sall dafa li nga xam ne moom la ko constitution bi sant ndax constitution bu Sénégal ci boppam moo tere Macky Sall mu sampand na ma loolee la Macky Sall jëfee jëfe li nga xam ne moom la constitution bi sant loolee amul benn mérite boo xam ne am na ci amul lenn luñ ciy félicité Macky Sall dafa def li nga xam ne moom la war a def ndax constitution bi moo ko ko sant kàddu yi Aminata Touré la yéene kaay gi di réew mi ko di jee nee na Ousmane Sonko njiitul Pastef bu ñu ko jàppee yóbbu ko ci kaso bi bu mu leen bett ndax Macky Sall démb ci discours bi nee ñaari fan ci weeru avril boo xam ne war naa ko jouer danaa ko xam lu jëm ci wàllum république bi décision de ñu daal koy appliqué te nag bi ne ay opération de prévention yoo xam ne ñoo koy gis ndax gis ngeen fu mel ni bi nga xam ne raase nañ ko génn ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon solida ak fenn ci zone de captage yéen a kaay gi de la ab laaj nee na Sonko va-t-il être arrêté la ko journal bi bindee Ismaïla Madior Fall andi na ci ay explication maanaam ci ay leeral yéen a kaay gi di bés bi nee dëgg nga xam ne doon na ci menacé Ousmane Sonko yéen kaay gii di l'indépendant nee na Macky Sall nag jamono ji mbaadu dem ba pare yóbbaale Ousmane Sonko yéen kaay gii di le point ñu xëy fekk fa professeur Aliou Sow nee na si la première fois am njiitum réewum Sénégal di organiser ay élections présidentielles yoo xam ne du ca bokk li nag grandeur dëggantaan la ndax Macky Sall 2008 bi mu tàqalikoo ak Abdoulaye Wade mbooleem li nga xam ne amoon na ko ci ndomba tànk da ko koo daal di delloo Macky Sall ci boppam la maanaam nitu kàddu la kàddu yi professeur Aliou Sow la Macky Sall panafricain exemplaire la ba pare bâtisseur la yéenekaay gi de la Soleil bàyyi mbir moomee wax ci baccalauréat yi xam ne tey jii la laas yéenekaay yi na ko ñi nga xam ne ñooy candidat yi ëpp na téeméer ak juróom fukki junni ci candidat maanaam ëpp na cent cinquante mille candidat yéenekaay gi de Libération xëy ñu mango jàng yàqu mango jàng yàqu mango jàng yàqu ma ne la ca diiwaanu Casamance jamono ji mango yaa nga yàqu ay toni toni mango yoo xam ne mango yaa ngoy nëpp mango yaa ngoy nëpp mango yaa yàqu nga bato Aline Sitoé Diatta bi nga xam ne demul dikkul loolee ci boppam bokk na ci li nga xam ne moo yàq mango jee mën na la mango jaa yàqu de sa diwaanu Ziguinchor journal bi de Libération moo xëy di ñu ko xibaar yéen kay gi de la Peuple Quotidien xëy du ñu xibaar mbir mu doy waar nee na dafa am ñaar ñoo xam ne jëkkër ak jabar lañu woon waaye nag ñoom ñaar dañoo tasa mën na la gis nga jëkkër ak jabar ji bi ñu tasee jëkkër ji nag dafa bàyyi ba ay guddee guddee guddi mu yolleeku ndànk dem ca fa nga xam ne fa la jabar ji dëkkoona maanaam mu yolleeku sàcc fa lu toll ci juróomi million ñi nga